mbokk yi fan yi xaw naa sooxe lool ci réew mi léeg-léeg ñu toog lu man ñetti fan mbaa lu ko ëpp du ñu liggéey te ki kat saa boo xam ne toog na ay fan liggéeyut ñàkk lu bari waaye réew mi ci boppam saa xam ne askan wi toog nañ ay fan liggéeyuñu réew mi dana ci ñàkke lu bari kon nag war nañoo gën a góorgóorlu kenn ku ne taxaw temm fexe lépp loo xam ne day waral ñu xëy du ñu man a liggéey rek ñu wat ñu moytandiku ko liggéey kon lu bari ay ngëneel la lu am njariñ la tàmbale ci dund kenn ba ca dundu société bi yëpp incha allah dana feeñ ci xutba gi objectifu l'islam l'islam bii ñu nekk diina ci jubluwaayam dëgg-dëgg daal ci nit ñi mooy baaxal suñu dund ki ñu mën a dund dund ko teey fii ci àdduna waaye baaxal suñu dund ki bu ñu dajeek suñu borom am ngërëmam kon l'islam loolu tax mu soññee ci liggéey ngir kenn ku nekk bu xeye am lu ko occuper temps bepp mu am fu mu ko passer am na yu bare bare yo xam du ci du ci dugg ndax en général ñi nga xam dañoo ne ci koñ bi nga di leen gis saa buñu xeye xey nañu liggéeyi ba ngon jotté ñu wacc do deg mukk ñu naan la yor-yor kat garage garam place yor-yor yaa ngi wax nangam deg nañ kat garam place ngon gi yaa wax nangam detail yu session yep dañ ci mucc dan nañ muccu sax di wax lu deug ngir am ba ñu mujj di di di def naka su non di sàcc ak yu mel non yep lay yóbbu nit ci dignité boobu mooy mu nangoo liggéey ngir fàggu loo xam dana ci mën a dund man cee dundal njabootam wa tawfiiril amni wal istixraar li mujtama mbokk yi jubluwaayu lislaam dëgg-dëgg objectifu lislaam de moo nekkoon sécurité daj fépp mboolem société bi am sécurité dal am fi ah bu ñu demee ba tey boo doon jóge sa kër ñëw fii ci jàkka ji rek sa néeg ñi woo ko bañ a tëj ngir boo ko tëjul ragal nga ku la doxe ginnaaw jël sa yëf boo ah, doon boo doon boo loo yor rek yaa ngi koy kof-kofal ngir ragal ñu sàcc ko ragal ñu jël ko ba nit ñi àgg nañ ci léegi sax waxuñu sax dañ lay fekk ba ci sa barab barabu liggéeyukaay di la agressé di jël say alal di dem mooy yi fi xewoon fan yi nga gis ko agressé ay place jël ay matériel ñi jël ay lekk ñi jël ay ay matériel ñi jël ay nangam ñi jël ay nangam loolee de ñi nga xam ni dégg nañ njàngalem l'islam bay xëy am lu ñu occupé di liggéey eh, di daan seen doole du ñu nekk ca loola doo leen fekk ca loole loola nag kenn ku nekk da caa war a góorgóorlu nga xam ne lii tax ak dal am sécurité am ci réew mi li ci ëpp solo mooy fexe ba nit ñi kenn ku nekk am lu mu jàpp Sénégal nag fi ngay gisee eh, koo xam ne day xëy suba di gontu ngoon di liggéey sax guddi waaye bu weer dee sax lu mën a faye néegam sax mën na ko bañ am gis koo xam ne daanaka liggéey dara ci koñ bi nga koy gis guddi ba guddi lay génn wala takusaan bu takusaan lay génn oto yi gën a rafet moo koy dawal kër yi gën a rafet moo ci dugg naka nangam nangam loolu nag encouragé wut ndaw li nga xam ne dafa ba a liggéey gis ku jàng-jàng ba yeey ay këyit yor ay diplôme am mënta fexe ba am am xëy gis koo xam da nga koy fekk ci place mu wóor na ni place bi ko fa mooy kan nga xamanteel wala ku la fi lu mu jàng du lu mu xam lu mu liggéey loolu nag encouragé wu ndaw nga xam dafa war a liggéey kon li waral état mooy fexe ba ku jàng ba am diplôme am xam mu teg la foo liggéey ñi jàngut itam mu formé leen ba ñu am xam-xam mu wutal leen fu ñu liggéey bu ñu defoon loolu sécurité dina am ndax kenn ku nekk dana am ko doy soxla ci muy xey di dal ci kaw nit ñi ngir wut lu am kon fala yumkinu an taxuuma hayatun bila hamal li werta wor moy nit ki mom ak dundam mënta teey mënta dal lu dafa am lu muy liggey ki liggeyul mom am du ak dundam mënta dal dedet liggeyo waye bu tabaski bi ñewé nga ni bëgg na mbassé bu seer fo koy jëlé di nga wax lo wërta wax mba nga def lo wërta def liggéeyoo tabaski yi ñëw nga ne bëgg naa ray xar rayal ko sama papa mbaa sama yaay te xëyuloo gontuwoo di nga wax loo warta def wax mbaa nga def loo warta def kon ab julit boo amul benn ngànt dafay góorgóorlu di daan doole di dundee ñaxam bu bëggee solo solu ca bu bëggee lekk-lekk ca bu bëggee naan naan ca loolu la yonent yi nekkoon te it loolu lañ jàngaleen mbokk yi l'islam de dafa jàppe liggéey muy aw xeet ci xeetu jihaad fi sabilillah kon liggéey ak ngabung ngànnaay kan di xex ngir l'islam ño bok ben daraja kon liggey kay lu bari ay ngeene la ndakete li firnde lolou fa khadra raa sahaba sabban xawiyan ila amali fa khalu law kana haada fi sabilillah neena ñen ci sahaba yi dañu musa romb benn waay muy waxambaana wu am doore di liggey di liggey rek ñu ni waw aka neexoon waa jii daal lii muy liggey mu def ko ci yoonu yalla ki de amna doole lol ma sha allah bi ñu waxee loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal leen tontu ci ay kàddoom ni leen laa taqulu hada fa innahu in kaana xaraja yasha ala awlaadi shigaaran foofu fi sabilillah ni leen bàyyi leen li ngeen di bu leen wax loolu waaye bu leen wax loolu ndax kii ngeen di wax muy daan dooleem ngir wut lu mu dunde dundal ci njabootam su fekkee loolu rek moo nekk yéeneem li muy def ak jihaat ñoo tolloo ñoo benn daraja ñoo bokk benn garaat kon kii daan doole ngir am lu mu dundee ci dignité am lu mu dundee dundee ci ngor du war di wax lu deug du war di xaar ko ko may du war di xaar ko ko sarax du war di talal loxo du war di wote ñu diko ko bloqué du war di yónnee ay message ñu diko lire duñ ko tontu diko ñakkal fayda ki bañ lolu tax muy liggéey mu ni koku limi def ak jihad ci yoonu yalla ñoy am batay tey ci bi salaa sallam teg ca ni wa in kana kharaja kharaja ya-, yasha ala abawayni shaykhayni kabirayni fu fi sabilillah mu ni leen ba tey nga wax ak mom su fekke liko tax di liggéey mooy dimbali ay waajuram yi nga xam ne ay mag lañu dafay liggéey ngir teggil ay waajuram coono dafay liggéey ngir teggil ku mën a teggil coono rek moo tax muy liggéey dafay daan doole ngir dimbalee ay waajuram mu ne leen na ngeen xam ne kii kon li muy def ak jihaad fii sabilillah ñooyam kon doom ji liggéey ngir taxaw ay waajuram la muy def moog jihaad ci yoonu yàlla ñooyam jihaad nag lu rëy daraja la mu ni wayn kaana xaraje saaxara nafsi yaxay fa foofu fi sabilillah mu ni ba tey waa ji ngeen di yedd daal Nan aka neexon doole mu jeexal ko ci yoon yàlla su fekkee li tax di liggéey mooy fegu liggéey ngir am lu mën a mën a moomal boppam am lu mën a dundale njabootam liggéey ngir bëggut a gis benn soxnaam mu dugg kër diw di ñaan lu mu dépassoo liggéey ngir bëggut a gis ay papaam ñu taxawal ci mbedd bi di tàllal loxo bëgg lu ñu am liggéey ngir sàmm digniteem kon li muy def moog jihaat ci yoonu yàlla ñooy am kon liggéey ndakete mbokk yi ci jaamu yàlla la bokk mune nak, nak nag wayin kaana riyaan wum faa xaratan foofu fi sabil shaytan bu fekke nak ngor si ngeen di wax ay la yewen nak liko tax di likey dal moy amna diko di wo diko ngistale wala ma di wanaw rek moko tax di likey beug ni ma fi alal ma fi gëna a kër ma fi ëpp oto ma fi gëna a auto ma fi gëna mbubu bu lol donc dong tax di likey nak na len wor ni ki kon mi ngi likey mi ngi top yoonu shaytané kon likey baxna wa na nga tan ban likey ngay def waaye nga liggéey ngir jublu ci sàmm sa dignité sàmm ci sa dignité wayjur ak say njaboot ak bépp mbindeef bu ci yàlla boole ba ci bàyyima yi ba ci njanaaw yi luqmaanul hakim dafa doon wax ak doomam ni ko yaa bunna yastagni bil kasbi l xalaali an il faqri fa innahu maftaxara ahadun xattu illa asaabuhu thalaasu xisaal luqmaanul hakim mu ni yow sama doom boo bëggee génn ci ñàkk na nga liggéey boo bëggee génn ci ñàkk daal demal nga liggéey mu ne ko na nga xam nag amul kenn koo xam ne dana ñàkk lu dul ne dana am ñett jikko yi ku ñàkk moom nu mu def am ñett jikko yi mu ne ko ñett jikko yi mooy ban bi ci njëkk mooy riqatun fii diini ku ñàkk daal dana jafe lool mu sàmm diineem ah, nit dana jàng ba xam ne lii muy wax sax du dëgg waaye ñàkk moo koy yóbbu mu wax ci lu mu wax bàkkaaru ngir am lu mu dunde nit dina jàng ba xam ne lii muy def du dëgg sax waaye ñàkk lu mu lekk motax tax muy def lora ngir bakkaaru ngir am lu mu dundé lool nak bu fekkoon ne liggéey dafa am lu mu dundé dana ci muccu kon ku ñak ngir mu sàmm diinem bu ko yalla dimbalut lu jafé la mu ko ñaarel bi ku ñak dana am wa fi aqli moy nit ñi dana no doya dal am xelam ku ñak dal kum jox conseil sax do ko diglu ngay dajeeg waajoo xam ni xëy na mbubam daa woyof rek bu la doon jox conseil sax do ko diglu da nga nan ki limay may bu doon am xel mu am xel mu toll nonu mu liggéey am dara kenn du diglu am xelam Fami bu mu bokk sax bu ñuy réunion def fami bi duñ ko wo ku cay woote di laaj xalaat sax bu mën jëmele nit fenn kanam do ko wo ndax ku ñak kenn du ko considérer ci dara mu ni bo bëggee génn ci lool lépp nag ñu xeeb la ci sa biir fami ak ci biir société bi demal nga liggéey mu ni ko ñetteel bi tam mooy bi ci doy waar lool mu ni wa dhahaba muruati neena ki ñak la geeyut jéemul dara dana ko yóbbu moom mbañum rus dootu ko amati day ñak jom sañ naa feccal nit sax ngir lu mu def ci biiram sañ naa tàggal nit ay maamam ngir lu mu def ci biiram sañ naa waxal nit lu dëgg ngir lu mu def ci biiram borom alal yu bare bare fii lu leen neex rek la ñuy dégg buur yu bare bare fii yor ay ndomme tànk man dara lu leen neex rek la ñuy dégg ndax la ñuy def lépp jub na waaye yow yaa ngi bëgg li ci poosam di ko jay di ko wax lu dëgg da ngay dem ba mbañ rusu doo ko amati da ngay xëy rek amuloo loo lekk ngay bippé nit ñi téléphone do leen war da ngay bippé ñu war nga ne aman ah, kat sama kër nangam ñu di la rejeté ngay vocal nit ñi téléphone di saraxu ak di ñaan ñu lay bañ ñu li say vocal du la tontu mba ñu lay duggal liste noire di la bloqué yooyu yëpp da ngay dem ba mbañ do do ko amati kon nit bu bëggé genn ci yoy yépp na liggéey daan dooleem lu ko yalla wërsegalé mu dund ci dundal ci ay njabotam mu ne ko asam min asih salasa li gëna a sax ci ñett yi ma la limal yow sama doom bo liggéey dana la dal moy istixfaafu naasi bi mooy nit ñi dana la doyadal dana la xép kenn du la considérer ci dara fami bo bok duñu la fa tuddé doom duñ la fa bàyyile dom fami boo bok duñ la fa sante dara kenn du la boole ci seen bop mom ndax amu do dara tekkiwuloo dara lañ lay jappé rek mu ne ko bo bëggee génn ci nit ñi di la xeeb di la doy dal nak na nga ñaqi ndax liggéey kat taxut ta am waaye sabab su am la na nga dem ñaqi lu yàlla dogal ci yow nga xam loolu la yàlla jox mo gën ngay dox di tàllal loxo dox di ñaanaatu dox di comaatu ci nit ñi loolu lépp nit ki mën na ci bañ yóbbu boppam ibnu mas'udin radiyallahu anhu dafay wax ni man de bëgguma gis waa ji nga xam ni dafa xey rek faste ay loxom yënguwul ci dara lum lu ko meuna a jariñ fi ci aduna wala lu ko jariñ Allah al-akhirah nit ki bu xeye ñaari mbir la meuna def ben mu dem liggéeyi ngir defar adinaam wala mu dem liggéeyi ngir defar alaaxiraam digam ak boromam waye xey fasta say loxo rek tegal say tank ta jàpp sa aduna dina bax sa al-akhirah dina bax ku ko ci def yaangi nax sa bop ku ko ci def weer dina de ña bindu kenn ko na jaar ci ruq jël aslafam dem yow nga xëy di wàññi poto ñu naan la euh, dépasse bi fii facture bi fii xaram tabaski bi fii mm, jasneer bi fii ngay wër di wàññi ay poto loolu nag nit mën na cee bañ a yóbbu boppam omar radiallahu anhu moom dafa doon wax naan man de barab bi nga xam ne ci laa bëgg bu dee doon ñëw fekk ma fa barab bi ma gën bëgg bu malakul mawti doon jël sama ruu fekk ma fa mooy barab bi may liggéeyee fi ma takkee samay dàll ba mu dëgër di liggéey Buma sañon buma de de dee di la may fekk waxut jakka ji de waxut kamil ba de waxut yoy lam jital moy liggéey ndax liggéey moy tax nga mëna jakaji ne ci jakka ji sa xel tranquille waye su bayiwo ci kër ga dara wala da nga wara yobbu ci kër ga amulo ko bo ñëwee ci jakka ji di julit sa xel ya nga naan ab ah, ma nu may régler sama problème wala bu ma tabaski bi nu may def nangam nangam sa xel du tranquille do mëna def lu ñu nang mu kon lima gënal daal moy buma démé bay dé sax ñu fekk ma ma tak samay dal nekkon di jënd mbaari jaay mbaari liggéey ñi de xamoon nañ lan mooy importance liggéey imam ahmad de dañ koo laajoon ni ko waa ahmad nan nga gisee waa ji nga xam ni dafa xëy toog ci këram mbaa mu xëy yendu ci ci ca jàkka ja di naafila rek di jàng Quran di wër toog ci biir jàkka ji rek mu ni waaw waa jooju def loolu lépp ba noppi nag ni man liggéeyuma dara waaye damay xaar wër am wërsëg liggéeyuma dara xëy naa daal ñëw ci jàkka ji toog am na ndaw yoo xam ne mbokk yi dañuy xëy dem ci jàkka yi toog jëmale ngoon ndaw yoo xam ne dañuy xëy yor kurus jëmale ngoon ndaw yoo xam ne dañuy xëy yor ab téere jëmale ngoon loolu lépp baax na waaye liggéeyi wecc saw ñàq wut loo dunde moo koy jiitu biñu laajee ahmad loolu ni ko kooku loo gisee mbiram mu ni haada rajulu haada rajula jahila al ilm mu ni kooku daal mooy ngóor si nga xam ne dafa réere dëgg-dëgg xam-xam ki réere xam-xam daal mooy ki xëy yendu ci jàkka ji xëy yendu ci téere bi xëy yendu ci kurus gi te kan def ko ngir liggéeyam waaye da ko def rek ngir mu am euh, baña a rek baña ñak baña bokku tak ñi ak liggéey ci téré ñi jàngale waxuñu leen bokku tak ñi liggéey ci biir jàkk ji waxu ne waaye ki koy def nga xamni mom moom su ko ci fay tamu toll ci yor njabot tamu toll ci ndàng te gëna graw moy garaaw ay ndaw rek koy def ndaw do gis mu yor kurus di xëcc lu jeex rek yor téré di jàng lu jeex rek yor euh, ne ci jàkka ji toog wutuñu liggéey ta toll ci taxaw tak soxna toll ci tak ah. ngénte ay dom toll ci taxaw say wajur loolu mbokk yi kuréel a ah, xam-xam rek koy def kuréelul xam-xam bu xeye ya. day liggey ba nopi doog ci tek jaamu yalla ta ñom ñaar sax ben lañu mu ni waaw ki def loolu ndax degul la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ba muy nett mbirum picc ma bi daf wax ni tax khimasan wa taruhu bitana taana mu ni daal picc bu xëyee day xif ab da fay reus waaye bu yëlebee ay lafam dem tukki dem xëy lekki bu gont see di ñibbi si biiram dafay fees dell ba mu jox ay njabootam kon picc sax njanaaw sax day xëy liggéeyi comme njanaaw ay def loolu ak astaraak nit moo xam ne am nay xelam yàlla jox koy cër yoo xam dara dara sikku ci mu ni loolu ko ànd ak xelam sax waru koy waru koy def kon yonente bi salaa salaam ak i saxaabaam ñoom dañ doon liggéey ci géej gi di liggéey ci jéeri ji ngir sàkk luñ dundee dundal seen ay njaboot abu xilaabata dafa doon wax naan benn waayi mu ni ko li waa ji daal man de sa buma xeye ma di gis nga ne ci sa barabu liggéeyukaay di fàgguloo dunde dundal ci sa njaboot ci laa lay gën a naw fuuf may def sa buma ma rek gis na ci jàkka ji nga naan da ngay wérd nga naan da ngay julli nga naan da ngay jàng loolu duma la ci naw li ma lay nawee mooy nga xëy ndaw nga dem wutiloo dund dundal ci sa njaboot mbokk yi nettali nañu ñu ni Seydina alayhi salaam bokk na ci juróomi nit ñi gën tedd ci nit ñi ra'a rajulun fa khala ma tasnu khala ata'abbudu khala man ya'uduka khala akhi khala akhuka a'abbudu ilayka Hisa dafa fek ben way mu to mu ne ko yow yow mile ana lan ngay def fi mu ne man damay jamu damay jamu yalla mu yow mi jamu yalla ana ci kan nga aju kan mo lay dundal mu ni man de sama ben mbokk momay dundal mu ne da nga xamni sa mbokk dundal mo la dak jamu yalla kon yow mi toog fii naan da ngay julli da ngay def nangam ki fexe ba ngay am loo def ci sa biir di fexe ba rafle wo nga am loo sol di fexe nga am loo lekk am loo naan kooka moo la dàq jaamu yàlla kon lekkee buñ ko génne ci jaamu jaamu yàlla kon ndaw moom li ko war mooy saa bu xëyee takki dàllam liggéey yi loolu mooy dëgg mbokk yi bu ñu seetantelee lenn ci aaya alxuraan yi dañuy gis ni yàlla di lëkkalee mooy di dajalee liggéey ak jaamu yàlla ñoom ñaar benn lañu bu liggéey demee jaamu yàlla dem bu jaamu yàlla demee liggéey dem ñoom ñaar benn lañu kon olof juumut bi mu nee liggéey ci jaamu yàlla la bokk bokk na ca loolu li yàlla wax ca suratul ankabut aya 17 fabtaxu inda allahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilayhi turja'un mu ni na ngeen di sàkku seen wërsëg ca yàlla te ngeen di ko jaamu te ngeen di sant yàlla te yëg ni ci moom ngeen di dellu ndax kat fa alladi yarzuqu huwa alladi yu'bad kii wërsëgale kooku la ñuy jaamu kii wërsëgale kenn képp la mooy yàlla ki ñu jaamu képp na moo mooy yàlla kon booy liggéey ngir wut wërsëg yaa ngi jaamu yàlla waaye booy jaamu yàlla yaa ngi jaamu yàlla kon ñoom ñaar ñooy ànd benn lañ lii nag mbokk yi dañ cee war a dégg ni réew mi fan yi fitna ji nga xam ni xew na fi metti na lool addina bi yëpp ñu ngi koy coow Sénégal li ñu mooy réew teranga la réewu teranga boo xam ni ñu ngi lakk ñu ngi taal ñi ngi rey deret di tuuru ay liggéey di yàqu ay ay nit di faatu ay nit di am fitna ñu toog ay fan duñu liggéey fan yooyu ñu toog liggéeyuñ góorgóorlu bi nga xam ne danoon daw dépasse bis par bis am na ñoo xam ne bu ñu xëyee tey jii bu ñu wàccee la ñu for moom la dépasse suba nga xam ne bu ñu toogee tey liggéeyuñ rek moom suba duñu xala xalaatuñ fenn dépasse ak góorgóorlu yooyu nag su fekkee yàq nañ seen liggéey ba ñu toog ay fan liggéeyu loolu dana metti lool dana metti lool rawat na ci réew mi fi ñu toll dama wax ne heure bi ñaari mbir de moo waroon am bu dee coow li coowul politique la heure bii li waroon a xew ñu ni juróom-ñetti weer moo des ci élection yi mbaa lu ko yées li waroon xew ne mooy ñu xàmmee sax kii mooy candidat ak kii ak kii ak kii kii lii mooy programme am lii mooy programme li mooy programme waaye tolluñu loolu fi mu ne kenn mën laa wax kan mooy candidat ak kurub ñii dañ ñu waruñoo bokk ñii naan kenn ñu ne ci problème bu kenn xamul fii ñu toll tey tabaski bi li ci des matatul weer ñu waroon a imaam yi waroon wax sax ak nit ñi xar xar man moo baax a tabaski yi mooy tank bi fi lay jëm bët bi fi lay jëm nangam nangam waaye yëpp sax te luñu ko wax ko dégg rek mi naan jamm jamm jamm borom kër yi waroon jënd sax ni ñu def ba yeew xaru tabaski ak ni jamono jafee waaye fi bo génné doo gis benn xar sax bu ñu kenn waxul waxu tabaski politique Sonko Macky Sall nang aji sar nangam nangam rek yoy rek ngay dégg muy di ay data ci dëkk bi yoy nak yakal nañu lu bare bare bare lo xamni waxna ko fi waxati ko ma wax ni yoyu mbiru mbir mu mata a la ndax mbir la mo xamni lemuñu yakal ëpp na ba nopi ay bakkan yi fi dee te yalla wax ni ku ray ben bakkan te tey ko sawara ga jëm sa bu yëngutu amé rek manifestation am rek ñu ni fukki nit dee fukki nit ak nangam dee ñet nit jep ñet nit dee nañ bala ngay wax alal ju yaq da nga wax ben bakkan alal Sénégal jëpp mu yaq mo gën ben bakkan tóor bakkan amul lu koy wécc alal mom lu mu bari bari bari bari boo ko bu yalla dogalee ne di ko amaat man ko liggéeyal am ko way bakkan kiko ñak ñàkk te ci armée yi koku fan lay jógee jëleete lu ma am te li ci gëna metti moy ay ndaw képp lañu kon mbokk yi nañu moytu fitna ndax fitna baxul wala dafa wax ne yam ci bopp borom yaakaar naa amul benn sénégalais bu yëgut jafe-jafe bu jógee ci fitna bii di nga xëy taal sa connexion bëgg a connecté bëgg a dox see soxla mënoo ko def di nga xëy yëkkati sa téléphone bëgg a woote mënoo ko def di dund ay jafe-jafe ak i méttit yoo xam daal ni réew mi réew mi sëngéem na ku ci am kàddu nag war na koo yëkkati ngir réew moomu dal ku ci am ñaan war koo wax ngir réew moomu dal te bépp situation boo xam ne day tax ñu xëy duñu mën a liggéey kenn ku nekk ci ñun na jël ay responsabilité jëm koo wattandiku bu mu ko wax luy tax réew mi tàkk bu mu ko wax luy tax rew mi yàqu bu mu ko def te xam ne jàmm ci la lépp xaj bala ngay wax len day fekk nga am jàmm sëñ Tuubaa dafa waxoon ne jàmm de xamut lu ko gën fii xamut lu ko gën fa nu jàmm yàlla nañu ko yàlla boole defal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق